lu aussi lii ñu génn 2011 yaakaaroon nañ ni xeex pour troisième mandat dana fi jeex ñu xeex 2021 xeex 2022 xeex 2023 ay bakkan yu bari rocc réew mi nekk ci jaaxle parce que ñii dañ naan défiance la mais ñii naan angoisse la. est-ce que 2021 ba 2023 li ñu doon xeex est-ce que mandat la woon aussi je pense que 2021 2022 2023 xeex bi du woon euh, particulièrement waxu mandat waxu mandaa bi ça aurait pu se poser à partir du 3 avril bu fekkoon président Macky Sall euh, waxoon na ne day dem. da nga fàtte ni parce que daaneelu ma euh, xeexu troisième mandat dama doore 2011 yow ma 2021 2011 laa doore. 2011 la ñu xeexoon xeexu mandat ñu ñëpp ñu jàppale président Macky Sall dafa jeex na 2016 mu def référendum ñoom ñëpp ñu ànd a wax la ñu wax mais soo fàttali ko 2021 2022 2023 la gars yi doon mun mbirum troisième mandat li ñuy sante yàlla mooy nii mu jeexate mu jeexate bu bett nit ñi mais muy jeexital bu yeewi nit ñi muy jeexital bu rafet ci troisième mandat bi parce que li président décidé je crois que dañ koy rafetlu on s'en félicite mais surtout il faut le féliciter moi je fais partie de ceux qui le félicitent. vous savez sans sans sans réserve. oui tu sais pourquoi euh, d'abord askan wi nga xam ni moo ko xeex muy F24 muy Yewwi muy toute la. nation s'était levé pour dire non au troisième mandat. loolu est-ce que est-ce que F24 am na ci am na ci effet. kay xam nga bul parce que F24 y a deux trois mois. la la amul benn crédibilité bi nga xam ne F23 amoon na ko bul xeebal kenn ah? xeexam. xam nga est-ce que du une aspiration collective des Sénégalais boo xam ne Macky Sall daf ko daf ko daf ko dégg. oui mais mais cette aspiration est portée par une organisation qui a été le F24. le F24 ñëpp ñoo ci bokk c'est une structure qui avait fait l'unanimité autour d'elle ñun ñëpp ñu d'accord ni kenn troisième mandat waru fi am loolu mooy dëgg gi ba tax na ñëpp ci lañ bokk xam nga soo koy tudd doo ci xàjj doo ci seen parce que ñun ñëpp ci bokkoon askan wi jàpp ci et ni ci askan wi jàppe loolu moo tax ni mu jeexale rafetani mais est-ce que mais parce que j'ai vu des hommes politiques yu ne euh, oui c'est la pression populaire est-ce que mbir mi du du du victoire u Macky Sall ak de l'ensemble du peuple sénégalais parce que F24 euh, jotul poser yenn actes vous avez même du mal à coordonner à faire des activités bari na nit bari na mbiicoo mballoo bari nañu fiable bari nañu fiable lu nekk a ngi am F24. Ouais, ce combat n'a pas été remporté par le F24. Ah, mais par le peuple sénégalais. suis désolé. le peuple s'est mobilisé mais gis nga il faut toujours des mouvements d'avant-garde gis nga xeex bu ne gis nga mi ngi mel ni nga ni woon la ñu xeex 2011 M23 defu ci dara xam nga loolu mënoo ko wedd ah M23 du f parce que M23 dafa doole 23 juin ba egsi ci loolu fii tamit fa mu doore biñ demee ba troisième mandat bi nag doon vrai problème ci la ñu taxawal F24. kenn mënu leen nieen seeni mérite bari nañu naam bari na coow naam mais dox nañu wax nañu mobiliser nañ man loolu laa bëgg réew mi jàpp parce que gis nga combat démocratique combat politique il faut mu lu koy yenn et tant que mi ngi koy yenn mu am lu koy yenn di ko amul solution di yomb parce que f li taxoon ñépp bokk ci mooy non au troisième ñëpp li ci des ñu bëgg ko ci rax dañ ko ci rax après mais troisième mandat bi moo defoon unanimité autour mais maintenant maintenant ma pare euh, li tax man ma rafetlu ni mu jeexee parce que fu pas euh, vraiment nier à kii nu mu tudd F24 li mu liggéey ni mu jeexee mooy et c'est là xam naa fi ngay waxee da nga bëgg wax ni ñu bari dañu bëgg relativiser le geste et la décision du président Macky Sall parce que suñ nee dañ ko forcer moo tax mu nangu forcer bi am na mobilisation bi am na pression bi am na kenn mënul wedd loolu mooy dëgg mais beneen dëgg bi mooy ci jël décision te mënoon ni déet ni waaw bu ko tuutalal la mu def xam nga lu tax gis nga nit ki su defee loo xam ni moo ko waroon def mu def ko danga ko koy féliciter ngir ka waroon def la mu war def te defu ko est-ce que xam lim la ki nga xam ni dafa def la mu waroon def danga koy féliciter ci loolu ngir ka nga xam ni la mu waroon def defu ko justement donc moo tax man la le président Macky mois moi je le félicite il a été courageux Non, d'où verse ne courageux. Ah, a, a été, il parce que dans son parti, dans sa majorité, keroog ñu bari jooy nañ. ñu bari jaaxle nañu parce que bëggoon nañu mu def le forçage. mais c'est normal. Et il a eu le courage là où Abdoulaye Wade a suivi ses hommes. C'est pas un problème sax de courage. Moi, je pense que c'est un problème de responsabilité. Et quand je lis depuis deux, trois jours un peu les bribes de phrases yi muy génnee di wax. Euh, j'ai senti chez lui beaucoup de cohérence parce que nee na lu mu gëmoon la waxoon na ko def na ko man loolu laay jàpp xam nga jàppuma ci leneen li ngeen di commenter yépp pour man amul solo nee na waxoon na ko man ma bokk ci ñi nga xam ni 2016 j'ai fait voter non au référendum man. vous étiez seul nga wet ci sa non bi. man lu ma wéet xam nga man lu ma gëm jëf ma jaral de gis nga man li ma gëm daf ma jaral de dama ci wéetoon parce que la taxoon du woon loolu kooku mais c'est un débat dépassé c'est un débat de 2016 c'est dépassé mais dama ko wax biir PS wax ko fu ne wax ko ko moom mais li may jàpp liñ ko war nangul mooy nit ki su mënee wax déet mu wax waaw danga ko koy jox mënoon na wax déet déet il a dit il a dit qu'il est resté cohérent il est resté conséquent en tout cas moi je le félicite Alors, en je... même temps que je félicite le peuple sénégalais qui comme d'habitude depuis 2011 face à ce serpent de mer qu'est le, le troisième mandat c'est encore levé pour dire non. alors yow mi nekk euh, ci parti boo xam ne il a été au pouvoir et puis un grand parti est-ce que euh, nekkoo woon ci disposition yi pour mieux comprendre le oui non. est-ce que du Macky Sall dafa doon naxanteeg ak ay ñoñam parce que amaan na gis nga li xew actuellement APR ku nekk nee nga candidat nga am na ñoo xam ne sax amuñu ñaari nit nee nañu dañoo bëgg a nekk candidat est-ce que Macky Sall bu waxoon dès 2019 que bokkuma est-ce que sax réew mi dinañ liggéey. pourquoi nga bëgg ma dugal ci débat wu boobu xam nga yaa ngi bëgg a yàq waxtaan bi parce que ce qu'a fait le président Macky Sall comme président la République moi je l'ai salué. je l'ai félicité et je pense qu'il mérite que nous tous nous nous en réjouissions pour moi